tukkinam bu njëkk bi nga xam ne amal na ko ca bitim réew président Bassirou Diomaye Faye dem na ca république bu Mauritanie njiiti réew mi dina daje ak naatangoom Ould El Ghazouani ci benn tukki nemmeeku Ahmed Bezid Deda nekk doomu boo bokk itam ci société civile jàpp ni visite bi dafa am solo lool te day firndeel bëgg-bëgg ñaari président yi gëna a rataxal diggante bi am ci ñaari réew yi. nous sommes entre de bonnes mains, le président. jàpp naa ne suñu xel mën naa dal ndax président Bassirou Diomaye fay ak président Ould El Ghazouani li leen soxal mooy ñaari dëkk yi nekk ci jàmm doon benn gën a rataxal diggante yi. surtout que nos populations vivent euh, dans la fraternité dans la paix. et dans la concorde. Sénégal ak Mauritanie yàgg nañu am ay relations seen coopération nag daanaka laal na secteur yëpp sujet yi nga xam ne nag ñu ngi koy xaarandi bokk na ci gisement de gaz bi nekk ci frontière maritime bi dox ci diggante Sénégal ak Mauritanie nga xam ne exploitation bi ñu ngi koy xaarandi. mais je pense que tous les problèmes. coopération yëpp wala lépp li nga xam ne dafa soxal coopération dinañ ci àddu doon ay projet yoo xam ne nag ay réew africain ñoom ñoo boole seen doole taxawal ko. mën naa cee lim benn bokk na ci gisement de gaz bi nga xam ne moo dox ci diggante ñaari réew yi. leneen lu nga xam ne ñu ngi koy xaarandi ci boobu daje bokk na ci question yi soxal wàllum napp bu ci mel ni renouvellement licence yi nga xam ne ñu ngi koy jox nappakatu Sénégal yi. vous savez que la a octroyé plus de 500. bu leen fàttali ni Mauritanie may na juróomi téeméeri licence nappakatu Sénégal yi nekk ci Saint-Louis loolu nag li mu mën a andi bëri na ndax nappakat bi bu amee jën mareyeur bi dina si gis boppam jaaykat bi itam gis si boppam. maanaam benn chaine la rek bu ñu taxawal ngir ñëpp mën see gis seen bopp. tukki nemmeeku bi nga xam ni président Bassirou Diomaye Faye amal na ko ci réew Mauritanie dafa bokk ci bëgg-bëggam amal li ñuy wax intégration africaine ci loolu Ahmed Bézi Deda am yaakaar ni dinañu yeggali pont bu Rosso nekk ci frontière bi dox ci diggante Sénégal ak Mauritanie bi nga xam ni tàmbali nañ ko ñetti at a ngi nii te dina bokk ci li nga xam ne mooy gën a rataxal diggante ñaari askan yi.